dal leen ak jàmm lii di journée sans presse moom la presse bu Sénégal xëy amal ngir méttitlu jafe-jafe gu méttee métti gi presse di dund tax tey bi de bëccëg télévision yu bari xibaaruñu ba ci rajo yi yéenekaay yu bari génnuñu waaye Walf Quotidien jot naa génn gannaaw waxtaan bi ay kilifa groupe Walfadjri jot a amal dogal tukkee ca ne dañuy xëy def seen liggéey comme nañ ko daan defee moo xam Walf Quotidien Walf FM Walf TV ba ci Walf Net bu ci ne dina sàmmonteeg liggéeyam ndax groupe Walfadjri deful journée sans presse waaye tekkiwul ne dañoo bokkul ci combat gi presse bi di amal ndax ndax gëm nañu ne presse bu Sénégal ci waxtu yi ñu toll mu ngi dund jafe-jafe yu tar Walfajri jàpp ne lii di journée sans presse dafa ñoragul gannaaw bu mu gisee ne waxtaan weesuwul te dafa war a am ci diggante nguur gu bees bi ak patron de presse yi ci biir yéen a kaabit Walf Quotidien Reporters sans frontières di kuréel gu boot ay taskatu xibaar dal di sàkku dialogue maanaam waxtaan dox ci diggante kilifa yu bees yi jiite réew mi ak presse bi Reporters sans frontières jàpp ne réeroo amul ñàkk waxtaan a am ci biir yéen a kaabit waa UPF di Union internationale de la presse francophone jóg nañu dooleel jàppale CDEPS ci bile journée sans presse ne lu war la gannaaw tolof-tolof yi presse bu Sénégal di dund général bi di yor-yor gi amal taxaw seetlu ci bile journée sans presse jàppee ko faux combat des patrons de presse maanaam seen bopp rek moo leen ñor waxtu wu ñu laalee seen koom ca nga leen di dégg général bi di la soleil ne bëgg a dem taxuta mun a dem rawatina bëgg a jaar ca Gàmbi ay jafe-jafe yu jéggi dayoo moom la ay chauffeuru camion di dund ca Gàmbi gannaaw bu ñu bëggee lu tolloog fukki kilomètre ak juróom-ñeent xuus ca Gàmbi faw ñu fay lu tolloog 76 000 francs moom la ay chauffeuru camion gis gis ne mënatul ne faw ñu dakkal ko ci saasi ndax jëmul kër yéene kaa bi di Walf Quotidien xëy duñu xibaar ci ngan gi Ousmane Sonko premier ministre di amal ca Mali jot naa fegook naataangoom gafane ay kàddoom ci biir yéene kaa bi Ousmane jot naa mettitlu ak massawu askanu Mali ci jafe-jafe yi nga xamante ne Mali jot na koo dund leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaa bi te mu jot ko yëkkati ca Mali moom Ousmane Sonko premier ministre xam le ne duñu nangu a réew mu ne moom na boppam mbokk yi tënk la woon ci xibaaru yéenekaay yi ndax journée sans presse bi fi jaar tax na journaux yu bari génnuñu